gën a yeesal dem beeg dikk bi jëlee fi woto yu màgget yi ngir remplacer leen ak yu bees loolee tax surtout daal di ubbi campagne de recensement. ñu ngi fii ci Patte d'Oie fekk chauffeur yi ci benn mbaar muy seen grande place bu ñu leen laajee naka la ñu gisee bi la initiative a Sall di tontu ne. loolu de bu amee lu rafet la lu baax la bu fekkee mën na nekk moom moo gënal ñëpp ndax képp koo xam ne yaa ngi ci transport tey boo sañoon lu bees ngay dawal ak lu oto yi boo seetloo ba fi ñëwee léegi yàgg na yàgg leen def changement changement te kenn bu fekkee li ñu wax daal moom gëm nañ ko ni dëgg la ah waaw nañ ko remplacer oto yi baax ndax képp koo xam ne yaa ngi dawal lu màgget tey boo sañoon dawal lu bees. campagne de recensement bi daal dina tàmbali ba noppi waaye xibaar bi lee du chauffeur yëpp ñoo ko yëg Pape Idrissa Diaw. recensement bi wax dëgg yàlla yëguñu ko à 100 pour cent xam nañ ne nag renouvellement de parc état baa ngi liggéey dugalu ñu ci waxtaan boobu pour ñu mën ci wax lu ñëw ci recensement bi warul tax ñu ne képp ku ci bokkul dañ la ciy génne. Pape Idrissa Diaw jàpp na ni manque de communication moo ko waral. toujours c'est comme ça xam nga état moom erreur bi muy def toujours ci transport mooy di jël ay décision yoo xam du ci waxtaan ak acteurs yi décision boo koy jël ci métier boo xamante ne bii woo ko da nga waxtaan ak concerné yi da waxtaan ak opérateurs yi waxtaan ak acteurs yi mën na am nag jàll na te yëguma information bi mais wax dëgg yàlla information boobu moom transport bu ma yëgul yombul te lu ci mënti saytu dem ak dikk bi ci ndakaaru daal di ubbi campagne de recensement jëm ci xayma car rapide yeeg njaganjaay yi nekk en circulation waaye recensement boobu du dawalkat yëpp a ko yëg te mi ngi nar a jeex fanweeri fan ci weeru juin bi ñu nekk.